am nañu plein pouvoir ministère jox nañ leen plein pouvoir jox nañ leen lépp loo xam ni war nañ ko mën a def ci wàllu xeex bi ñu def ko donc ci noonu la ñu daje woon tey bi nga xam ni gis nañu benn cas wu infection bu bu am Tivaouane donc euh, résultat bi ñu ngi ko jot le 22 le 22 avril la ñu ministère woo ne ñu am na kenn koo xam ni am na ko ci noonu la ñu jëlee matuwaay yi nga xam ni mooy war dem ci kër ga waxtaan ak waa kër ga waxtaan ak ki ko am immédiatement continuer euh, laaj yi ñu ko doon laaj ba mën a retracer fi mu jaar yépp ci noonu moom lañ ko dugalee ci ambulance yóbbu ko pour ñu saytu yaramam pour mën ko jël en charge leneen li mooy ñu nekkoon ak moom ci biir kër gi ñooñu tamit ñu saytu leen waxtaan ak ñoom sensibiliser leen ba li nga xam ni li ñu war a def ak ñoom ñépp ñu def ko ba ensuite nous transféré ñom tamit ci guddi gi ñu yóbbu ci benn hôtel à Thiès ci non la continuer aussi activité de santé publique moy mooy me retracer ka bi fi mu jaar yépp contact yi mu am yépp ñu jëm leen identifier identifier euh, def li ci war en terme de prélèvement en terme de confinement ba ñu jot ba nga xamni sen période passé na amna aussi yenen activité yo xamni ñing koy def lu jëm ci désinfection lieux yi def nañ ko ci kër gi nga xam la nekkoon def nañ ko ci marché yi def nañ ko ci ci ci restaurant yi ci noonu aussi lañuy continuer di ñaax di ñaan askan wi ñu sàmmoo ak li nga xam ni moom la ñu dénkaane surtout ci jamono yi ñu toll bi ci njëkk mooy respect mesures barrière yi ak aussi distanciation sociale bi wax nañ ko ku nekk muy soreek sa morom euh, benn mètre su néewee ba néew ñu utiliser masque loolu aussi lu am solo la ndax masque bi nit ku feebar rek su sëqatee wala dara li muy sëqat du mën a dem ci keneen ci moom rek laa yem su boobaa waay wàllante bi na wàññeeku leneen aussi loo xam ne li ñu koy sàkku mooy nit ñi aussi ñu góorgóorlu wàññi rassemblement yi wàññi rassemblement yi wàññi rassemblement yi

ci activités yooyu rek lañ ko mën a def donc il faut que ñu obligé boole loolu moo tax fi ñu toll nii lépp loo xam ni mën nañ ko def di yemale fi feebaru feebar bii defe naa mooy li gën ci ñun surtout réew yi nga xam ni amuñu doole su fekkee réew yu doole yi feebar bu sonal yenn sonal yi ba wax nañ leen ko sax dem na ba benn jamono yenn dëkk yi dañ doon seet même mel ni ñu nekk ci temps de guerre kii la ñuy sauver wala kii lañuy sobee donc nañu ñaan yàlla ñu bañ àgg foofu li ñu ciy jàppale nag mooy ku nekk sàmmonte ak li nga xam ni moom lañu moom la kilifa yi wax kilifa yi ci wàllu wér-gu-yaram wax ñu respecté ko